مولد معظم مبارك محترم تعظيم ينهدم على ذوي تقدم تعظيمه بسنة يقودنا للجنة بإذ ياد المنة لمغلث معظم صل على خير نبي قاد الورى بالأدب يا من كفاني ودبي بجاهه وسلمي والذي فاق سوى من البرايا بحدى حتى بدا كتب سما في عرشك المعظم وفي الجنان والسقوف وفي الوجوه والكهوف وبالرماح والسيوف قلع كل صنم قاد الهداة للنميم بطير ذكره الحكيم بربه الباقي القديم سبحان من لم ينم صل وسلم سرمدا على الذي قد ردا بليلة قد ولدا فيها مديم المحسم ليلة مولد النبي ليلة محور يبي ليلة محور تعبي وقور ذي التأسم بها النجاة والفلاح ma sururi wa najaax biha rabaaxu wa salaam alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin habibillahi alamin almakin wa ala alihi wa ashaabihi wa xayri xadimihi ahmad ajmahin ya rabbana bi abdika alqadimi wa sahbihi wa nahjihi alqawimi habli muhammadin lasi fi taifi muraadahu yaa daafi an maxaawifi akrimhu fi taaifihi wal ahli wa man naxa ilayhi yaasal fadli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki taalibe yi fi teew yëpp bokki jullit yëpp Cheikh Mouhamadul Moustapha mi ngi leen nuyu bu baax nuyoo bu kawe nuyoo boo xam ne mi ngi ko jëmale ci ñëpp boole bokk ay cant ak i ñaan waaye nag di ci jiital nag gannaaw nuyoo boobu ak cant yeeg ñaan yi di leen xamal ne jëwriñam jooje ngeen xam ne tudd ngeen ko fi léegi muy sëñ Abdou Lo mi ngi leen koy jaar di leen ko ziar ak mboolem ñi nga xam ne ginnaawam sun borom wane leen ak ña ko jiit woon ñëpp di leen seeral ne sant na ko lool te it fa mu nekk yóbbaale na gërëm te lool doy ci sëkk. loolu nag bu ko waxee ñun ñëpp seere lañ ci seere ngeen ci man de taxaw naa bis ñu ànd wuti sëñ Abdou Lo sëñ bi ne ko Abdou Lo mu ne ko Mbàkke mu ne ko man maay si sëriñ waaw maay si sëriñ loolu yombut de kon nag alhamdulilah rabbil alamin mi ngi ñaan suñu borom dolli ko ay te defal ko ñëpp la ca dolli it nee mi ngi leen di sant di leen gërëm ci liggéey bi yi nga xam ne moom la santaane de ahiba al xadim bi nusrati diini wal xawi ci taxawaay bi ngeen ci taxaw ci section bi muy ci biir bi ak mboolem ñi ngeen àndal liggéey bi ñëpp ci jëwrin yépp ci góor ñi ci jigéen ñi mag ak ndaw kenn ku ci nekk seere soosee mu seere ci say ëbb tam doxoon digganteem ak yéen di leen jottali ndigal yi ngeen di ko defee na mu ko bëgg nee na na nga na ngeen xam ne xolam sedd na ci yéen guy nangeen xam ne day jëmmam jii day bu doonoon Moussa na ngeen xam ne Haaruna ngeen ci moom bu doon yonte ngeen xam ne am abou bakar wala akum sidna omar ngeen ci moom ci seen taxawaay bu rafet nag bu wóor nag bu wóor boo xam ne mbaar mii mbaar mii mbaar mii nga xam ne ay kenoo ko téye mu ci lëggeel sëñ tubaa wóor na ko ni yéen taif ab kenu ngeen ci kon nag loolu nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi nuy ñëpp it di sant ñëpp nag ñun bokk liggéey bi ci Ahibahil Khadim di ñu teew ak ñu teew ak fu mu mën a ne dinu xamal ne daal ci gàttal liggéey baa ngi nii lépp ngi ci lépp ngi ci lun xam ak lun xamut lu nu sàkku ak lun sàkkuwut lun bëgg ak lu mën a doon lépp ngi ci biir liggéey bii nga xam ne sunu borom a ko seet ak sëñ Touba ak sëñ Mouhamed ba dëltal lañ ciy dële ne ko tegg ci loxoom moom it mu ànd ko ak noonu kon daanaka jërul faram ci jërul tasaar jërul lenn na ko lu ci waay nekk sa xel daal ak lu ci nekkul ak loo xam ne moom moo na ko yoreel te xamul ko nan xam ne lépp ci liggéey ku ci nekk daal bay boo nga ci yaa ngi ci li la Serigne Cheikh Mbacke neewoon na nit amul tey ëllëg lu gën nekk ci li ko war kon nee na mi ngi mi ngi ci soññaat dañu sol nag soññe nag ci tomb bu am solo muy tomb suubu tomb suubu nan ko bàyyi xel bu baax suubu nag deltu gannaaw bokk ci déedéet da ngay jàll rek da ngay danga mel ne koy lab ci ndox rek doo deltuwaat gannaaw doo deng-deng doo taxaw doo gees dangay dem rek ñi fi nekkoon ñëpp ba ci ku tedd kii nga xam ne ku am lu dul moom mooy sëñ Tuubaa yoon woowu la jaaroon rek am li bëgg lépp ci borom walajtu xadiman fi imtidaahi walajtu ak bi ka bi ka saaltu maliki kaw ni ya a saaliki noor a saalik a saaliku mooy kon sóobu lépp moo koy maye sëriñ bi lool loolu la defante diggam ak boromam nam sóoboo woon nag mooy daa la yàlla bëgg rek mu ne ca sëñ bi rek nee na loolu it mi ngi koy fàttali nañ fu fi mën a ne ku koy tuddoo ku ne xoolal lay bëggu yàlla ak rasulullah ak sëñ Tuubaa nga ne ca lool loolu la ñu digal loolu sëñ Tuubaa soo boo woon ndax ku ne xam na ne ku tedd ki diiru bam feeñee jamono ak bin ko noppee gis lépp ci yàlla rek la ne ci yont bi rekk la ne ci sopp leen ci topp ko ci nangul leen ci jaar ci yoon wu jub ci dëddu dëddu àdduna ci dëggu lool sax ci tudd yàlla ak sant yàlla ak ñaan yàlla ak yéene ñëpp jàmm ak bañ a jaar ci lenn lu suñu borom tere fas yéene ndigal yàlla yëpp mu def wax nañ ne xaadimu rasul keroog ba tàmbalee ca la nit xam di këpp jébi di di julli waxtu juróom ak xeeti jàmm yàlla yàlla digg yëpp ba ci keroog fi ba ci keroog bi mu wujjee boromam wen mustafaat waxtu ci àdduna lu jafe ngoog musta julli it julli gu àndut goo xam ne njàpp mu bees teq la wax ndax daraa wax ne waxtu yàlla wi day waxtu yàlla wi wata bor rek laa koy jox wata bor maanaam moo loolu mooy wax nañ ne mustu julli ci menn njàpp ñaari waxtu njàpp jàpp julli ci tisbaar takkusaan mus ko def ndax nee na waxtu yàlla yoom wata bor rek àgg na ci sax ci njariñ ci mujj gi waxtu wu nekk ak mbubbam waxtu wu nekk ak mbubbam nga xam ne fañ teg yére lépp bu nopp bu jullee tey timis bala ñoo julli gee kay indi yooyu ënd na mbubb muy jullee ji gee mu sol ko lépp xamul lu ko waral mooy sóobu gi mu sóobu dafa seen dellu gannaaw te bëgg na lim li bëgg na li mu bëgg ki koy jox xolam sedd ba mu jox ci loolu yi rek la nekkoon kon nee na mi ngi mi ngi digal ñu nekk ci loola bu baax a baax a baax waaye nag nee na dëgg dëgg sóobu mooy nga fës yéene daal boo engagé ba dugg bul geesooti waaye nag na nga bàyyi xel ci ne luñ la tànnalut bàyyi ko ne waaw adamul may li ilaa ma ilaa ma lam yuxtar lakum kon loolu mooy soobu boo xasee dugg li ngay teg sëpp bët dëgg-dëgg mooy fësal yéene lu ñu ma tànnalut man saa yónnewu ci waaye liñ ne ma mbir maa ngi nii kenn mënu ma tee àgg ca loolu loolu mooy loolu mooy loolu mooy soobu kon nag soobu dafa am solo moo tax sëñ Tuubaa ñaan ci jës bu ne yow yàlla nag ma def ñi nga xam ne dañoo soobu bu bu ne cëpp rek nañ ma fekk may làmp bu ne tàyyi di leen wax yoon yoon wi ni jaar bi ko saatu maliki kaw ni ya nuura saaliki kon képp koo sóobu na nga xam ne fa nga jaar du wéet dana wéttaliku du xat dana yaatu du sori dana gàtt dara looy ragal it du fa am ndax Sëñ Tuubaa mooy sab lamp ta moo lay nital kon nee na kon ne na nu feddliwaat loolu bu baax feddliwaat jaayante gi bu baax dafa séenee nag bàyyi xel ne adduna toll na foo xam ne ku téyewul sa pas-pas bu dëgër liy fa liy fëkkaate bari na liy jaxase bari na liy yàq bari na waaye nag li ne may chance dëgg-dëgg may nu ak sënga suñu borom ak suñu dëgg sëñ tubaa moo ñu sax rek ci ndigal yàlla yi fas yéene ko jëf waxtade ko téere yëpp te li nu tànnal kenn nun ñëpp liñ nu tànnal ne nu lii la rek nañ téye loolee te bañ ko boole ak dara loola buñ ko defee li bëgg lépp daanu ko am nee na nag nan xam ne xolam sedd na guy ci ñëpp ñii di dégg ak ñi fi teew ak ñi fi teewut képp koo xam ne daal yaa ngi ci mbooloo mi di ahibaal xadim li nusratil dinil xawim sëriñ bi nee na nga xam ne foo nekk mi ngi yow baat boo wax nañ ko waxati ko kon nee na mi ngi sant baax ci taxawaay soxna yi sëriñ bi nee na sant na leen a baax a a baax gis na soxna yi sëriñ bi gis na seen pas gis na seen pësteef gis na seen yëtt ci liggéey bi kon nee mi ngi leen ci sant kenn ku ci ne fa muy wute barke yàlla na ko suñu borom defal kenn ku ci ne rek fa mu nekk rek na ko suñu borom fekk ak barke muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw nee na bisu suba bi nag nan ko waajalal bu baax ci yara ak teggin ak xam ne kin nu boolee nu war a dajeeg moom suba kooku mooy xayru xalqillee moo noonu war a dajeel moom fii bu subaa kon kenn ko nekk sa xol fóot ko ba mu set wécc say ndab na ko ubbi raxasal ba mu set nga ubbi taxa ne insha fii bu nu fi teewee bu nu yeewee ko kenn ku nekk ndab la nga duyoon boo delloo danga xam ne def nañ ci dara xaw ma fan de waaye fii di ku fi nekk boo delloo wallaahi asim da nga xam ne sam def nañ ci dara lu wóor a wóor kon nee nañ ko waajal bu baax ci yar bi ak teggin yi ak dal gi loolu lañ ci mën a wax de waaye laaj des dañ koy junj nañ ànd ko dal ànd ak yar ànd ak teggin fas yéene tudd yàlla ci nen nu ko digale ban àgg ca waxtu wa nga xam ne ca lañ war a yeewee rek mu ànd ko ak moom doon son élément tey ëllëg nan ñaan tey bii taalibe Cheikh Moustapha yi nan maa si ñaan Cheikh Moustapha Mohamed yàlla na ko suñu borom yàggal yàlla na ko yàlla wéral ci dar gi sëñ Tuubaa barkeb Cheikh Moustapha barke sëñ Cheikh barke sëñ Mbakke Mouhamed ak képp ku baax barke xasida yi barke alxuraan Cheikh Moussa na fi yàgg yàlla na wér lim nu yéene yéene ko al ummatul islamiyya yéene ko mbindee fi yëpp mu yéen maa ne yàlla ndimbal yàlla yàlla na ko yàlla teg ci loxo mu defal na ko nee na jërë ngeen jëf xolam seet na kuy wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nangu leen ñaan. نعمته باب الإله صراته هدى الإله وصحبه وسلم صل على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا شفيعنا وآله وسلم صل على المؤدبين ذي الحرمة المؤدب خير رسول ونبي مولده معظم مبارك محترم تعظيمه يعظمه على ذوي تقدم تعظيمه بسنة يقودنا للجنة بإذ يا دلمنة لمغلث معظم